allahu rabbul alamin lay tàmbulee man mat lamin julli ci xayril alamin tey tagg ngeen ji ilimaan danaa fi juñ mbiram lu néew nu tuut li ma ci xam xooma asaka asaka am yàllaa xamoon rek lu mu doon Serigne Abdou Khadre Mbacké di leeru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak soxna Aminata Bousso di leeru Serigne Bousso be moom Serigne Abdou Khadre Mbacké moo doonoon ñeenteelu xalif général des mourides bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul foo ko gisaan ci gis-gisam ci xar kanamu sëriñ Abdou Khadr Mbacké nga ci doon gis nit ku yaatu woon seddoon lool amuk taalibe diine képp moo ko ñoroon loolu waral giiru dundam yëpp mu doon ci imaam ولجمع في الدنيا gannaaw ba magam jolaaxu Serigne Fallou Mbacké la ko def imam ci jumaa ja muy jiite ajjuma ak xew-xewu diine ci doxi lanu dundam yépp moom Serigne Abdou Khadre da doon jubal tey dëggal diiru fukki weer ak benn la doon xalif général des mourides mu gàttoon lool waaye mu liggéey ci liggéey bu am solo bu kenn dul fàtte ba abadan ñu ngi xamal ni benn yoon kepp le Serigne Abdou Khadr Mbacké wuute woon julli juma atum 1976 te boobu mi ngi fekk mu dem ziyaare ji yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله mooy sikkim bi mu defee fukki weer ak benn ci bopp xilaafa gi ci la wàcc liggéey fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai atum 1990 ñuy ñaan yàlla suñu borom mu yokk leeram te taas ñu ci barkeem amin